wala déedéet waaye lan moo tax ñun jigéen ñi boo gisee sa moromu jigéen ñu koy dóor yow yaay kii toog di ko muñuloo ak naan ko soo demee ñu nangu say doom soo demee ñu yàq sa àddina soo demee nangam ak sàngam man damay laaj laajte ñun jigéenu sénégalais ñun lan mooy suñu problème xam nga problème mu nit soo ci mënul def mënoo cee dindi dañ ciy maandu. ndax sagesse daf ci bokk ni boo mënalu nit ki dara nga ba ko mu jëlal bu mu décision ndax tantôt vie am du sa vie dundam du sa dund décision yi muy jël bu amee conséquence concerné wu la du sa problème arrêté leen góor ñi nga xam ni dañuy dóore di leen di manipuler yéen parce que soi-disant que kii sama xaritu jabar la naa ko manipuler pour mu dem manipuler sama jabar ndax yow ki ñu dóor ba ambulance jël si ko mbaa ki ñu dóor ba police jël si ko mbaa ki ñu dóor ba daanaka mu nekk ci diggante dund ak dee te dóor yooyu ku ne xam na ni dee xaj na ci ñaata jigéen ñooy ñàkk seen bakkan ci at bii ñaata jigéen lañ fi làggal ñaata jigéen lañ fi pattal ñu bëri nag su suñu waxee dóor Europe dañ naan non loolu mu nekk 2023 góor saña dóor jigéen fii ci Europe non non loolu amatul wallaahi lazim mu ngi am te day am di am te dafay am nag ndax lu tax mooy jigéen ñu bëri bu ñu leen fi indee dañ leen di laver cerveau soit disant que maa la fi indi tu dois payer maanaam indi bi ma la fi indi da nga koy fay ci sa yàpp yaram maa la fi indi su lay dóor da nga war a ne pat sénégalais yeeg sa mbokk yëpp daal dina la yow bu lay dóor sax da war a noppi amaloo parce que moo la fi indi waaye li ma damay laajte indi boobu ba bu koy signé ne woon ko su ma la fi indi dama lay dóor xam nga ni kooku du fi teg kon indi bi nga ko fi indi du sarax du da ko defal faveur mais obligation la ndax l'islam moo la sant jabar dëkkal ak dëkkoo jabar soo ko taqee da nga koy dëkkoo par force c'est obligatoire kon soo ko fi indee defaloo ko dara lu exceptionnel wala lu extraordinaire da nga ko fi war a indi ndax da nga ko fi indi pour bànneexu ci moom waaw da ko fi indi pour mu lay toggal di la yàqal waaw la plupart nag si góor ñi dangay ngay jëlee jigéen Sénégal fekk ko mu muy amal boppam di fortaatu di mënal boppam wala muy jàng nga indi ko ci dëkk bi kenaape ko bëggoo mu jàngi bëggoo mu instruit bëggoo mu liggéey bëggoo mu am xarit bëggoo mu am vie sociale bëggoo daal lu dul mu ci kër gi togg yàq bale ak jur mais jigéen ñu bëri tey bu ñu xoolee seen vie bi ñu dund ci Europe ñoom dañuy gëstu ñu ne su ma xamoon ni fii lii laa fi am kon ma toog Sénégal Sénégal ga nga jóge tu tout perdu nga nekk fii di muñ di dundee espoir jàpp ni sa dof bi bu subaa dina changé ngeen baal ma cox ji ndax kii dóora moom dafa a woowee jàpp ni bu subaa dina changé di am am maanaam espoir que ni yàlla suñu borom dina saay situation yow heure boo xëy situation bi di gën a empiré bu début bi ci mbéj lay commencé bu max këmax saaga ainsi de suite dem ba ci ay kurpañ ay fiir des sax ay ñu jël ay ay ay ay ngànnaay dina ko dóore pour lan jigéen ñi nga xam dañ nekk situation boobu dañu faible dañu nekk ci emprise emprise nag soo ko dégg mooy nit koo xamante ni dañ ko tënk mënalatul boppam dara parce que psychologiquement elle est faible psychologiquement elle est impuissante psychologiquement mënalul boppam dara ko kenn du ko yedd kenn du ko blâmer parce que tey su amoon c'est c'est factuel yëpp ndaa di nekk yëpp maanaam léppam dikk su léppam dikkoon kooku du toog ci sëy boobu ndax moom ci boppam xam na ni sëy bii fii du moom ci boppam xam na ni fii bugg fi toog mënu fi toog waaye li muy calculer mooy bëri yàgg naa na wax nag ci sujet yi maanaam góor ñu dóore waaye dama ko daan boros rek di jàll defoon naa ci live ça des années mais il est temps ma waxaat ci parce que at bi moom li may consulter ci ay jigéen sama jëkkër daf may dóor sama jëkkër du ma jox dara sama jëkkër mën na xëy ay jour du fi bàyyi dara nga gis ci jigéen ñoo xam ne dañu nekk fii ci Europe am maanaam seen jëkkër tere leen machine à laver di leen sant ñuy fóotee loxo wallahi am na mbokk yi nga gis jigéen boo xam day xëy fotool ma kanamam di ma wan cicatrice yi mu am ak libit yi mu am ndax lan ndax ay dóor jigéen ñi mënoo lu dul naxante ñoom jox leen confiance rassurer leen fortifier leen maanaam jox leen benn benn benn euh, courage parce que sinon duñu dem. soo nekkee di leen di jugé mooy yaa ngi yokk xar mi karam ndax dañ naan waa lii yëpp c'est de ma faute man lii laa mérito kon naa faf toog ce sont des femmes qui se sentent seules elles se sentent tellement ba nga xamante ni mënuñu ubbi buntu bi nga xam ne mooy buntu rëcc ci seen euh, musiba mbokk yi kon xam ngeen ni jigéen bi nga xam ne dem na ba jàpp na ni amatul choix parce que kenn du ko soutenir ndax xam na ni fameem dañuy ragal ndax benn yaay ak papa buggul ñu ne moo tax sëyu doomam say xarit dañuy ragal ndax kenn bëggul ñu ne ah moo influence xarit ba maanaam nit ñi ku nekkee retiré wu Sénégal mooy dëkk boo xamante ni nit ki su su bu ñuy takk sa sëy bi neex ñëpp ciy sóobu ku ci ne am soo grain de sel bu mu ci sànni mais su sëy bi quand tout va mal ñëpp a wu def comme c'était xamuñu la ñi nga gënoon jàpp ni ñooy say xarit keroog ngay xam ne léppay leer ndax keroog la la yàlla di wan discernement kan mooy say mbokk ku say kuy say xarit ak kan mooy ki nga xamante ni tey moo la bëgg ndax ñoom ñëpp dañuy retiré wu ndax bañ problème maanaam nit ki su fekkente ne da ngeen di ànd wala mu nekk sa mbokk wala mu nekk sa xarit ba pare yow nga ni bu amee problème yow doo am problème loolooy sa bopp nga bëgg te kooku bëgg la ndax yàlla daf lay defal la tri jigéen ñooñu tamit nekk ay jigéen ñoo xamante ne tellement que dañ leen laver cerveau ndax jëkkër bi lay dóor moo la naan demal fu la neex da lay défier dala naan demal fu la neex dara du ci dikk foo dem ñu nangu say doom parce que loolu la ñuy naxee jigéen ñi fii te dóor yoo xam ne du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon ñu ne la foo dem dañuy nangu say doom kon yow amoo choix da ngay toog ndax xam nañ ni doo jigéen doom ci xol bala sax góoru Sénégal dafa teel a comprendre loolu tax tey Sénégal maanaam ñii sëy nekk ay sénégalais ñu lay wax liggéey nday añub doom soo baaxul sa doom torox maanaam boo sëy bi da ngay nekk jaam soit boo nekkee jaam sa doom baax boo nekku maanaam boo nekkee ren sa doom bon beneen bi mooy ñu lay dóor teg ci ne la yaa ngi nekk fii Europe boo demee boole ñu nangu say doom mais loolu c'est say moroomu jigéen comme yow laver le cerveau dina wax naan la waaw koo ci wax sa problème mu ne la ah muñal rek parce que fii moom foo dem ñu nangu say doom léeg bi ci gën a pire mooy dañ lay nax yóbbu la ba Sénégal déposé fa say doom sànni leen ci daara yi ba pare indiwaat la maanaam nga toog Sénégal ñu yàq maanaam dañu pas yàq say këyit parce que këyit yi moom kenn mënu ko yàq yéen a xamul procédure yi déposé la ba nax la xam ne dootoo mën a ñëw wala book ñu jël la teg la fii sosal la ay sos yu ne weng daal dina yow yaay nga boo xam ne da ngay def da ngay abandonné say doom pour récupérer xale yi gis nga saay-saay sooy xeex ak moom da nga koy àbb ay jukkoom da ngay àbb ay jukko saay-saayam xeex moom ba pare parce que yéen ñi nekk situation yi xam ngeen ni yi mënu leen ci mënu leen ci génn à l'amiable parce que jotewu leen ak ay nit ay dof ngeen di sayal te ki nga xamante ni xamul la mooy amiable xamul buur saay na buur dee na la xam kooku da nga koy topp ba ca yoon te gis nga lii ñu leen di wax nii du dara lu dul ay piège ay manipulation mais dara du ci dëgg ngeen baal ma ci mais ay fen la ay duur la gis nga jigéen fii jigéen buy dund violence non seulement dañ lay protéger protéger say doom accompagner la ba nga autonome ba nga indépendant parce que la majeure partie ci jigéen ñooñu ñëpp xam nañ ni mécanisme bi góor bi di njëkk utiliser mooy lan mooy fexe ba doo indépendant économiquement parce que xam nañ soo indépendant économiquement da nga am choix vu que yow waroo am choix donc dañuy fexe ba doo liggéey wala booy liggéey xaalis bi nañ def la tout ba doo ci jëriñu doo ci def dara et que tout le dañ leen beneen bi mooy nee nañ la boo demee ñu nangu say doom pourtant yow foofu nga toog noonu tubaab yi nga dëkkal su leen neexee ñu ñu boole la ñaata nit lañ fi boole ñu nangu seen ay doom pourtant da ngay toog jékki-jékki rek <laughs> lettre bi ñëw ñu ne la say doom dañ leen nangu dat teel parce que signalé nañ la léeg-léeg école bi moo lay signalé ndax xale bii dund violence wala xale bii gis violence yaayam ak papaam wala ñuy dóor yaayam xale boobu day traumatisé wu ay comportement am day feeñ ñun ñiy jàng psychologie de l'enfance soo gisee xale bu ñuy maltraité c'est tellement facile à comprendre c'est tellement facile à à à connaître ba nga xam ni doo ci am sax doute da xam ne xale bii soit ñu ngi koy dóor wala mu ngi assister ci scène yu yu horrible et loolu rek tey buñ la ci signalé mën nañ nangu sa doom kon gis nga sëyu violence moo amul mujj nga toog mun nañ nangu sa doom nga dem sax nag nga mucc ndax ma dama naan boo demee wax dëgg yàlla di nga gis ay nit yu la assister di ñu la accompagner di nga gis ñu la protéger contre cette boro là li ci des nag ay wax la ndax gis nga man mi maa ngi nekk di volontaire si euh, euh, maison d'accueil yooyu te jaar naa fa tamit ndax dund naa violence comme yéen tey maa ngi nekk ak sama ay doom alhamdulilah je me suis reconstruit je me suis rééveillé je me suis levé je me suis battu tey góor bu la dóoree danga koy wan ni yow maay doon jigéen bi ngay mujjee dóor sa àddina dinaa la traîner justice dinaa la wan biddéew bëccëg ba yow boo gisatee kuy dóor jigéen di nga ko la jëlal say daal nga daw góor ñooñu noonu la ñu war a jëflanteeg ñoom bu vidéo kon mbokk soxna yi yéen ñi nga xamante ni yéenay dund situation bii nekk ay góor ñoo xam dañ leen di dóor yéen a war a jàng jox leen leçon waaw gis nga nit tànk yaa ngi koy nangu ñu la koy teg tànk bañoo ko dañ la koy teg su dee vie bii nga choisir lii nga bëgg a dund amul problème mën nga ko dund tranquille mais arrêté jàmbat bi parce que da ngay jàmbat say mbokk say xarit seen xol di dagg seen xol di sot ñuy am leen naqari te duñu la mënal dara kon bàyyil jàmbat bi sobeel nit ñi daal maanaam nga libéré nit ñi soo décidé nag di nga gis ay jàmbaar faqatëdd yu taxaw jàppale la parce que yàlla suñu borom bu la bëggee dindi ci musiba day teg ay nit ci yoon yu la jàppale ndax xam na ne yow kese mënoo jàppale sa bopp ndax amatoo doole boo jàppale sa bopp kon gëmal yàlla gëm yàlla rek moo fi tegu gëm yàlla am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur fii yàllaa fi nekkal ñëpp tey ki la naan tey boo demee ñu nangu sa doom kooku xamul sax lu muy réeree suba sa destin yàllaa ko yore doom yooyu bu yàlla tuddee di nattu da am ñoo xamante ne déggoo li ma la wax dañuy xëy jàngi école ba signalé leen ndax xale bu dund traumatisme dafay neex a xàmme tey kër gi appartement yi ngeen di dëkk ay tubaab ngeen dëkkal mën nañ leen signalé te boobaa dara du ci dikk kon arrêté leen ñuy fowee seen xel yi ndax nit ki mënul di la dóor di la di la di la maltraité ba pare teg ci ne la doo wax doo ko fi waxee boo ko waxee lii tooy ci yow la jógewaat mais yàlla dafa juste yàlla dafa juste xanaa déggu leen nee naa leen man dund naa loolu ci dëkk bi li ma waroon def def naa ko delluwaat ci sama borom am confiance sama borom accepter natt bi ma teg accepter que ni lii cheminement de vie la la fait que yàlla teg ko sama yoon am na lu ma bëggal te li ma bëggal tey comprendre naa ko te yoon boobu su fekkoon dama ci war a jaaraat dama ciy jaaraat parce que ça m'a beaucoup appris tey xamal ni dëkk bii Europe gii processus moo fi am tey mënoo nekk ak ay xale ngay dund euh, ay dóor ba pare nga ni yow da xëy a dem sa sa yoon nekk parce que soo demee sa yoon comme ça moom na la porter plainte te boobaa dangeen ngeen problème mënoo xëy xëy gàddu say doom nga ni damay dem tuxu boo ko defee moom maanaam dof ngay sëyal ginnaaw dof ngay sëyal tey boo loo mën a def mu dal sa kaw kon da ngay ñag terrain bi gis nga euh, xeex stratégie la te gis nga seen xeetu sa yii xeetu xeex la ginnaaw xeex la da nga war a euh, am xel xam teg stratégie balaa ngay génn ci sëy bi porte plainte mënta ñàkk te par force da nga koy def ndax boo seeti jee assistance sociale ñu war la assister da ngay porter plainte c'est obligatoire soo ko defee ñu nangu say doom waaw parce que waa ji ko war a porter plainte te plainte boobu ce pas retirable ndax boo ko retiré tamit procureur moo koy topp et loolu mooy loi wu dëkk bi te fii dañu yaakaar ni waaye da ngay sa jëkkër plainte ñu génnee sànni ci mbedd ma xanaa boobu daa fekk mu jam la paaka mbaa mu tiire la waaye fekkente ni jamul la defu la yenn dégâts yu majeurs yi ay dóor nii rek la bu boobaa processus lay doon parce que dañuy def ay enquête déglu école bi déglu dëkkandoo yi déglu xarit yi pare pour témoin malheureusement say say mbokki sénégalais moom kenn du ci témoin ndax ñoom ñëpp ay naafeq lañu ngeen baal mu tax lañu kenn du ñëw di toog ci baar ba naan da lay témoignal bu dee gis na fekkee na duñ la témoignal yow la ak yàlla suñu borom contre moom te bu boobaa bu ñu defee seen ay enquête ba pare processus bi ñaari choix moo mën am soit ñu daal di koy tëj ci këram duñ ko tëj ci kaso mais dañ ko xaalis bu weex taal di yulli poosam nag ndax dañ koy yar xamal ko ni fii dëkk bii kenn du fi dóor jigéen jigéen danga koy yor mu rafet bu ci daal di si dul dóor doo ko jébbal ay waajuram yow dama lay yor duma la yor yor bu rafet te dama lay dóor yow chaque jour ndaw si ñaan la baat ngay doo ko may baat te dama lay dóor te ñaata jigéen ñoo fi dund violence conjugale heure boo ñaanee waa ji la may baat te dama lay dóor <laughs> kon dafay yomb day neex trop kenn du nangu say doom maa la ko rassuré nekkal jigéen bu apte mentalement yow bu dee dofoo toxoo naanoo yow dóoroo say doom lu tax ñu koy nangu fii kuñ fi nangu say doom la nga def waxoo ko sénégalais yu bëri na ngeen baal ma jox ci sénégalais yu bëri dañu mën a fen dañuy toog jàpp seen doom yi di leen dóor wala seen doom yi bu ñuy jàng ji jour école parce que dañuy nelaw ba seen tàttang la majeure partie jigéen ñi du jóg toppatoo seen doom wala chaque jour ñu ngi làng ak seen jëkkër ci biir kër gi ba pare di ko nëbb léegi bu assistance ni ciix say doom ngay yuuxu di am looy fii kuñ fi nangu sa doom c'est parce que y a quelque chose li nekk ci biir processus bi duñ ko wax man maa ngi ci biir système bi et je connais bien ce je dis ci centre accueil yooyu maa ngi fa et je travaille a arrachés de leur famille kon je sais naa bu baax li may wax kon nañu arrêté di tiital jigéen ñi ñuy dóor naan leen bu ngeen demee nangu seen doom fii kenn du fi nangu sa doom bu ñu nangoo sa doom si si di kayo da kilbite wala yaa ngi consommer des choses wala yaa ngi def ay mbir lu tax ñu nangu te fii kenn tëb tëb nangu sa doom dañ lay bind lettre avertir la jox la date ne la d'ici 40 jours man j'ai accompagné benn femme sénégalaise boo xam ne femme boobu tamit c'était la même chose dafa kilbite buy wax day yuuxu tàccu tëb dal du n'importe quoi moom nee na jëkkër ji da koy dóor ñu jël ko indi ko ci centre bi bu mu jàpp doom yi budd seen loxo saaga dóor lu kenn xam tubaab bi di ko observé tubaab bi ñu sonnee ci moom dañu bind lettre euh, ci tribunal des mineurs ñoo ñu jël processus décidé nangu doom yi bind ko lettre bi ma indilee lettre ma liir ko ma def ma ne ko xanaa ñu dimbali ko mu rawale ay doom mais fii kuñ fi nangu say doom mooy avertir nañ xanaa ke yaa dul mën a liir nga daal di toog ne doo liir wala nga jël mbir mi di ko di ko di ko tendeefal waaye fii li xew ci dëkk bi ñun ñëpp xam nañ ko kon nañu arrêté di nax nit ñi te gis nga fii rago yi moo rey nit ñi ñi nekk ci biir système bi la majeure partie duñu wax parce que rek euh, système la bu ñu protégé am na ci yoo xam ni secret administratif la amoo droit di ko wax kon nag ñu war a xam ni yéen jigéen ñiy dund situation yooyu bàyyi leen di perdre foi gëm leen yàlla wàkkilu leen si yàlla bu leen xàddi xam leen ni fii yàlla moo fi nekkal yépp nit mënula tooñ tooñar bi la ku lay teg mbugalu àddina ku nekk boo jógee jàkkaarloog moom yàlla suñu borom taxawu la xamal la ni yàlla rek moo fi nekk tey su ma leen waxee ni tey combat bii ma porté combat bii ma mëne lii mooy motivation bi nekk si ginnaaw mooy nekkoon jigéen di dund musiba ci dëkk boo xam ne man je suis toute seule aw ma fi mbokk aw ma fi xarit aw ma fi kenn sësuma ci kenn jàng Sénégal am say diplôme ñëw ci dëkk bi waaj na la doo liggéey ngay rayante di liggéey di yéeg di wàcc mu di la teg enfer boole koog di la martraité di torturer ak torturer say doom nga taxaw jàkkaarloog moom xamal ko ne day dàq mu ne la du dàq yow bàyyi ma ma dem libéré ma ci jàmm nga ne doo ma libéré ma ci jàmm ñu xeex nag dem ci guerre bi te guerre bi nag lu ma ci am jël waaw te nag macha allah yàlla yàlla suñu borom jox ma ndam lu weex tàll moo nangam jëkkër ji amuma ci aw awma lu may rus te tey damay témoin à visage découvert sans aucun scrupule amul leen lu ma ci ragal parce que fii bi ñu leen di jox jabar ngeen indi ko fi c'était pas pour ngeen di leen dundale fii jigéen bu ñu fi doon porter plainte ay dafa waaw moo yóbbu jëkkëram tribunal ay doom dinañ yàqu macha allah say doom teg leen ci yoon ñu bokk ci meilleurs élèves yi école bokk ci xale yi gën a yaru yi nga xam ne sénégalais bu fiy wax doomu diw say doom lay jël exemple bokk ci xale yi nga xam ne macha allah da nga leen di yar teg leen ci yoonu diine bu boobaa ñu xam ne yàlla day àtte ndax sëy ba ba nga ko waree sëy da ko sëy na mu waree kon njaboot gi defuñu loo xamante yàlla daf leen war a toroxal au nom da nga yóbbu seen bàyyi tribunal parce dafa def lu bon fii doom bu normal bu lisit bu nekk dina ne yaay sama baay sagam nii la lay def teg ko ci yoon parce que xam na parce que xale dofuñu xam nañu justice ban doom mooy mere ndeyam parce que sa baay da daan dóor sa ndey après sa ndey yóbbu ko tribunal sa doom di la mere xanaa doom yooyu dañuy kilpite boo leen yedd ci justice ñu xam la mooy justice boobaa say doom dañ lay soutenir jàppale la kon fii amul lu ñuy rus amul lu ñuy ragal nañu arrêté tout le temps di jël wax ji di ko taawi di ko lii fii ban jigéen ngeen fii gis mu mel ni man dund li ma dund tey taxaw ñëw di wax parce que amul conséquence bu ci am assumé ko amul leen lu ma ci ragal fii jigéen bu ñu fiy ndulli bu nekk boo bëggee nga ñëw ma nekk sa marraine yow pareel rek man du ma ànd tàppet de pareel ndax komba bi dina yàgg dina tar te dina gudd te dana metti te day laaj foi laaj gëm yàlla laaj détermination laaj jom laaj nga jël say doom teg ko ci sa bakkan ku leen wax nga xuri leen fii rek nag laa yem ak yéen di leen wax nag affaire bi du xeexu ngat-ngati de xeexu silence lay doon xeexu stratégie xeexu intellectuel xeexu teg mbir mi ci yoon jël sa droit liñ la may nga jël ko ba nga xamante ni ci àddina yow góor bu aw sa yoon xam na ni bokkoo ci jigéen ñi ñuy maltraité góor gu la xool day xam ne yow bokkoo ci ñuy maltraité après dafa bon du saykat du exemple de quoi je mel ku la wax nga roy ma ku la wax nga def ma sa exemple ku la wax ma nekk saykat man na ma yàlla déclaré saykat mais pas vous les êtres parce que sama amul lu ngeen di lijjën sama vie xaw ma leen xamu leen ma ana yéen ana man ah donc sa xaluma kenn lam dëgg ji nag dafa neexut a wax. te man moom su ma wax dëgg du ma ko raay nepp neppal parce que neexalu ma kenn joxe xam-xam la njëriñ la lu ma jàng te dama ci changé ay view femmes yu bëri mais nag guerre bu jotee boobaa nag dañuy simmeeku jàkkaarloo guerre bi def ci la ca war